mbokku Europe ak états lu bees tax juddu na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publique lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di whatsapp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg. Sëñ Fallou. Sëñ Fallou yow John. da nga ñëwoon tey euh, ziar ci jumaa ji. mu bëgg a ah, ñëw. waaw bu mag bi ziar naa foofu noonu après bëggoon saar xam Sëñ Fallou bi ñu ne day julli quoi te bëgg xam ba ñu julli pare. doo ko a ziare ziare xam suñu saaliw ak li xam si tam doo leen waaw. Euh, ndax am nga coppite yoo gis ci ci wàllu ziare yeeg yu mel diggante daaw waaw macha allah ren moom daa mel ni xaw naa gën a yomb parce que boo ñëwee da ngay raam-raam gul tey moom da ngay dugg si biir rek dem si biir dem siyaare dem say ziare ak say ñaan gën a dem benn yeneen xabre yi. ndax mesures waaw waaw waaw parce que suñu masque yaay ne sax nañ ko respecté jumaa ji yëpp jumaa ji ñu ko respecté bu baax a baax waaw yéen mesures jël ci wàllu colk yi ci yéen nga xamante ni jëfale gis ndaw ñi ndax gis ngeen ne loolu ndaw yi a baax a baax waaw waaw ñu joxoon yëpp dafa defoon bu baax baax dafa noonu lépp bu baax parce que ñu joxe woon boo xoolee parce que ñu joxe woon yëpp bu baax monsieur Barrier ak ñu col yi ñu joxoon même soxna ñu joxoon seen wàllu col boobu noonu yëpp moom ñu koy ñu bu baax a baax baax sëñ Fallou waaw bés la waaw waaw def ziar ban waaw maa ngi génnee bërëbu sëñ Moutala bi sëñ Abdou Khadre waaw maa ngi ziar nag bu wér nag di ziar mbokki taalibe yëpp di ziar seen bi tamit waaw di sant di gërëm nag Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a teew fi waaw xam nga rek màggal dong lañ am amuñu leneen. ay taalibe lañu ay ndongo lañ da tout tànk bi sax boo ko joxoon kàddu dina la wax ne la moom màggal rek la am ndax mu ngi nii xam naa ne deux ans la am waaye ziar may nii sax moom moom ko gën a bëgg. waaw ziar naa bërëb yëpp nag fii moom laa mujjee. waaw waaw wax dëgg ne yàlla de yoon yi day neex na de wax dëgg ne yàlla waaw ñëw bee gën a jafe ziar bi moom waaw ñoo ngi ziar nag bu wér a wér waaw mesure barrière moom mat na ndax ñoom booy dugg dinañ la defal zel dinañ la jox masque dinañ la conseiller xanaa kay li ci des ci ñun ndongo yi la rek ñu matale ko waaw waaw waaw waaw dañ koy respecte bu baax sax ndax ñun amuñu lu sëñ bi amuñu lu sëñ bi waaw man seetu si ama numbe man seetu si ama numbe man si ama numbe mooy sama sëriñ waaw sëñ Abdourahmane Mbacke di sama wasila soxna Fatma Mbacke di sama yaay waa maa ngi daal di ñaanal Sénégal yëpp yàlla na ñëpp am jàmm waaw boo duggee ci gaal da ngay ñaan gaal gi mucc mais bul ñaan naa mucc da nga naan yàlla na senegal mucc yàlla na Sénégal am jàmm yi am ci yeneen réew yàlla bu mu fi am waaw yàlla borom màggal gi yàlla nañu ko dàqal. ah dégg naa jërë ziar naa lépp lépp fu damay dem rek dem julli ji waxtu tàkkusaan soo ko dem mën a dem dallu ji waaw ngi ci kii <coughs> maanaam ah, changement bu rëy rëy ci xabru yi sax niñ ko defaree woon dañ ko gën a yeesalaat ba ci jaar-jaar fi nga daan jaar mu eh, ma xat-xat léegi yaa ngi jàll sans problème wax vraiment vraiment bu mu ñëwee damaa yéemu waat vraiment vraiment dama kontaan naa sama xol dafa sedd guy ba amatuma leen mesure barrière waaw ñu koy respecté soo jàllee même soo amul masque dañ lay may masque joxe la sel waaw. ren nga gis ndigal ci yenn conk ren sëñ bi joxe ndigal ba gis ni ndax seetlu nga loolu euh, nit ñi ndaw yi nañ ndigal. ko jëfe nañ ko bu baax a baax a baax jëfe nañ ko bu baax te boo seetee sax xaw na law wër na maanaam yemul Touba kese ci yeneen dox gox yi sax maanaam loolu lañ continuer appliquer loolu vraiment suñ ci taxawee maanaam gëm naa ne ndaw yi nañ changé comportement ay daaneel tubé xale góor yi wadal seen tubé yooyu yooyu vraiment wax yàlla loolu naa su rafetul mosen daal mo euh, ma ñaanal laa leen lu ci balaa dara xew mbas mi nekk nii te lëmbi àdduna bi yàlla jële ko fi ak jàmm te xiirtal niñ ci lu baax ginnaaw ba yàlla bu ma xamee ne soo wàccee mbas mi day fekk ne maanaam def ñoo mere xiir xiirtal ñu ci lu baax ci ko defee meram mën a deñ ba mu wàccee mbas mi fi mu toll nii waaw. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp dégg ñaan yàlla ñu fekk ay at yu bëri si barke Seydina Mohamed di ñaan ñëpp jàmm bu ñu ñëwee si jàmm ñëw si jàmm màggal nag màggal suñu Tuubaa la quoi nit bu ñëwee dañu ànd yar ak teggin quoi ba ñuy nekk di xëccoo di xéero du ngaañoo quoi bu ñu ñëwee dugg si xafre yi siyaare génn dem si ngeen quoi. waaw ndigal yu wax maa ngi jëfe bu baax ndax ba mu dugg si biir waaw bu ma may dugg jox na ma sel ma raxasu bu ma duggee maa ngi xool bërëb bi fu ma jaarloo ma jaar fa fu na ma fii bu fa jaar doo fa jaar man saa man ñu laa koy jafee quoi ma koy wax tamit sama mbokk ndaw yëpp. xëy na ma et puis benn nañu nañu métti quoi mesure bëre ak corona bi quoi. ku si nekk respecté masque yi ak gel bi quoi. nga xamante ne sëñ bi joxe na ko ci ni mel ndax loolu jëfe nga waaw tamit jëfe naa quoi nga man bañ naa ba su may dugg si jumaa sama bopp dama ko war a loo xamante ni su ma duggee gars yi dina ma bàyyi ma dugg dugg siyaare génn ñaar waa Sénégal yëpp génn nam toogaa sama dal waa ñu ngi dox ci loolu ñu ngi dox ci bernde yi ñu ngi dox ci xasida yi xam nga ñu ngi dox ci liggéey bi mais Magal Touba dafa nekk euh, loo xamante ne maanaam caaxaan indiwu fi nit am na ñu bëri ñoo xamante ne fii caaxaan mu la fi indi ñu bëree mais képp koo xamante ne maanaam sàcc la fi indi wala képp koo xamante ni nobante wala doxaanante mu la fi indi day leer barki Seydunaa Muhammad yal na la yàlla a yal ñun ndax ñun dañoo gëm Serigne Touba di jàmbaar dañ koo gëm de du ma la euh, euh, nañ kàddu sëñ bi joxoon ko yow ba nga ñëwee gis loolu gisoo ndaw ñi ni ñu doon def jigéen ñi di sol ay caaya ak yu mel euh, ñëpp tënku ci li sëñ bi wax loolu la la la. murid dëgg day tënku li sëñ bi wax murid dëgg waxuma kuy murid murid tontu nag murid murid dëgg dafa am murid tontu am mais képp koo xamante ne da nga ne murid nga ci guddi nii gëmoo kenn ku dul sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa lépp lu mu wax da ko war a def sëñ Muntaxa lépp lu mu digale mu neex da nga ko war a def mu naqari da nga ko war def ndax ñu dañoo gëmul ku dul sëñ Muntaxa barki Seydouna Mohamed. yéen kàddu ngay jeex. kàddu yi may jeexalee mooy maanaam képp ku fi ñëw képp ku fi ñëw maanaam màggal indi la fi màggal indi la fi màggalal ngir jëm Serigne Touba def li Serigne Touba santaane def li Serigne Saliou santaane muy liggéey ak jàng xasida ak jàng alxuraan jàmbaar gënoon na fee métti de Serigne Touba il faut ñu wax ci moom tuuti seriñ Touba il faut ñu wax ci moom tuuti ndax Serigne Touba balaa nga daare ba méttee Serigne Touba moom kase moo wàcc si. bato bi lal si jaadaam julli sëgg si ndox jëmam takk suuf bàyyi Serigne Saliou kese moo ko fi def nañ waxante dëgg Serigne Saliou moo ne Serigne Touba moo ne ci kanam amul ku jiitu Serigne Touba Serigne Touba amul kenn ku ko jiitu ñi nga xamante ne ñi ngi woon ci bato bi doon ay doomu aadama la ma doon wàccu ñu sabal suñu borom lu tax wàccu ñu julli ku ci wàccoon julli maanaam doo gis doomu aadama ndox rek ngay gis ñi ngi sant yàlla bu wér nag ndax ñun ay murid lañ di ñaanal képp koo xamante ne ñoo fi ñoo nga fi di màggal yàlla defal la jàmm yéen tamit maa leen di ñaanal xam nga di leen jox seen wàccuwaay ndax kontaan naa ci yéen trop bu leen neexoon tamit lii nii nii nii may romb rek dem da ngeen ma romb gis ma xam ne kii nii Baye Fall mooy moo mooy saf ci moom te dëgg rek mooy saf ci moom moo tax ngeen taxaw defal ma lii mais yàlla na leen seen Touba defal jàmm. man maa ngi tudd Ndéelé Si. Ndéelé Si ban dëkk nga jógee. joxe maa ngi jógee Jaxaw Siin Buur Siin Kumandoo Feen. Jaxaw Siin donc yéen ren ngeen ñëw màggal si ñaata at ci ngeen da ngay ñëw waaw donc ren ba nga ñëwee ñu sëñ bi joxe ay ndigal ci li nga xamante ni moom mooy euh, accoutrement ndaw ñi ci surtout si jigéen ñi ndax ba nga ñëwee gis nga ne loolu respecté nañ ko fii ci jumaa ji waaw wax dafa yàlla moom sëñ bi li mu joxe woon xale yi jigéen ñi respecté nañ ko parce que sëñ bi li mu wax dafa dëggu na si yoon na jigéen dangaa war a sol sol bu jot parce que jigéen nga jigéen sa cër warul di feeñ waaw parce que boo bëggee am doom ju baax surtout nga nekk ci sëy dangaa sol sol bu jot yaa ngi dégg parce que loolu mooy yoon parce que jigéen yaramam dafa fragile surtout maa nga war a nekk euh, dangaa nekk responsable yaa ngi dégg am nga jëkkër am nga ay doom dangaa war di sol lu jot mais boo ñëwee bëgg a doon jigéen bëgg a mel ni ku bëgg a soppeeku doon góor. ndax yow daa nga def genre laxasaay yooyu ñuy wax genre affaire yaay faal yi euh, te ren gis gisuma ko ci affaire yi. non loolu moom mosuma koo def parce que neexul sama jëkkër parce que lu neexul sa borom kër waroo koo def chaque année dama ko doon bëgg a def dama ko ko doon euh, kii nii di ko ko wax di ko ko wax chaque jour di ko ko laajte parce que mun naa koo def wala déet mu ne ma déet munoo ko def ma laajte ko lu tax mu ne ma jigéen da ngaa war a di sol lu jot parce que mooy yoon surtout boo demee ba am borom kër ba nga nekkee jànq ak ba nga amee jëkkër du de ça fait deux duñ nekk benn. mais ren seetlu nga ren daal genre yooyu jigéen ñi sol ak caaya yooyu gis ngeen ren amu fi. yàlla changé na trop changé na trop parce que da nga daan ñëw da nga daan seen jigéen teg ko góor te loolu du yoon yaa ngi dégg. mais instant bi ren moom changé nañ trop trop trop parce que sëñ bi dafa waroon dafa waroon yàgg wax pour jigéen ñi mën a changé. waa ndaw di leen jox ne leen dee leen sol sol bu jot. de leen def comme seen moromu am na moromu am na ñoo xam ne boo leen xoole am ci ñoom responsable bu baax. dee de ñuy xool si seen moromu jigéen ñi nga xam ne dañuy sol sol bu jot def lu baax di jëf ju baax parce que am na solin yoo xam ne daal góor moo ko moom jigéen moom ko. voilà merci beaucoup kontaan naa trop si merci lii lu am importance la merci beaucoup. man maman Seye laa tudd maa ngi euh, seen solu yeeg surtout a baax loolu loolu ñu lu baax la ndax jigéen dañu doon solu sëriñu góor def loo xamante ne naka su dul maka bi di ko laaj waaye li ñu def nii macha allah tubaab fakkaara ndax yiw na jot na ñun sañoon ñu ñëpp ñu def noonu ndax màggal bi sëñ bu wootee danga ngaa war a sew lu yiw xam ne say doom bu ñu ko gisee ci ëllëg di ko mën roy roy bu baax ah ambiance bi na moom macha allah neex na trop neex na neex na bëri na instant yi moom dañuy ñaan yàq yàq chaque année ñu ñëpp ñu ko fekke ko te wér ñaana suñuy waajur ñu yàgg fi lool te wér waaw dañuy ziar ñi ci biir waaye yal na yàlla nangu ziar yàlla ñu def ko ay ati at at ngeen déwén ñu taxaw yi di waxtaan jërëjëf kon gis ngeen askan wi li nga xamante ne wax nañ ko tey 17 safar su ñu amal li nga xamante ne mooy màggal gi euh, nit ñi ñëw ci bërëb yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir jumaa ji ngir ziyaar gis ne ku nekk li nga xamante ne wax na ko waaye tamit li kàddu yi gën a mooy li nga xamante ni mooy digg yi nga xamante ne bi na ko ci solo yi ni ndaw ñi war a solo ci màggal gi ren mu nekk loo xamante ni gis nga ñëpp bañ a laajee wax nañ ci rafetlu ndigal yi nga xamante ni euh, Serigne Mountakha ke joxe na ko waaye tamit euh, ni ndaw ñu maasoo jëfe ndigal yooyu nga xamante ni jëfe nañ ko kon ren gisul leen ay soxna yu sot ay caayaak yenn ci biir jumaa ji mu mel ne ren kon euh, loolu lépp ndaw ñi bàyyi nañ ko xel euh, ci diggée yi nga xamante ne sëñ bi diggée na ko euh, donc waroon nañ leen jumaa ji yëpp moo fi nga xamante ne mooy armeel yi mag bi bërëju bi nga xamante ne mooy Serigne Moutada Serigne Saliou ak mboolem bërëb bi nga xam ne ñoo ne si jumaa ji daal dem nañ fa taxaw wan leen nga xam ne moo fa am ci côté affluence nit ñi waaye tamit ñenn ñi nga xamante ne génne nañ fa ñaar ñi nga ko biir mi mu nekkoon li nga xamante ne andi lañ leen ko tey ci veyu màggalu Touba 17 safar ci fi nga xamante ni moom mooy euh, alentouru euh, juma ji euh, donc rek ñu jox leen di daje rek suba ci màggal gi li nga xamante ni moom mooy jour du safar bi ngir ngeen mën a xam lan moo mën a am ci programme ci li nga xamante ni moom mooy bisu màggal gi bisu du safar fi nga xamante ni moom mooy Touba Mbacké màggalu 2021 bi jërë ngeen jëf.